del déglu del xool waaw ñu ngi santaat yàlla bu baax di julli ci Yonent bi euh, di jiite ci kàddu bi ñu génn àdduna yàlla na yàlla yërëm xaarale àjjana ñu tëdd hôpital aussi yàlla yëkkati leen ñu caay yàlla ñu caay féete kanam yàlla na jàmm yàgg ci réew mi yàlla may ñu wér ak sutura ak tawfeex waaw. waaw waaw saa bu gis ak moom ak famille bi mu ñu xam ne ñoom ay Baye Fall pire dire lañ ah, naka ngeen gisee maanaam ah, ci. cant gi nga xam ne moom ngeen taxawal te bokk ci 18 euh, safar gi nga xam ne dañ koy waajale màggalu Touba. Euh, cant dañoo war burul sa 18 safar ndax sëñ Touba loo ko cantara doyut ndax daf ñoo xare ba daral dañoo liggéeyal dundam lépp ngir jaamu yàlla yu réussir xam nga kooku ngi ñaan yàlla nag yàlla suñu borom moom mu ñu def taalibeem ñu ciy góorgóorlu di ci was suñu yàq wax dëgg yàlla yoon bi dugg ci yomb na loolu nekk ci taalibe nag moo jafe ndax suñu taalibe sax xamuñu ndax nangu naam déet waaye nag ñu ngi wasu suñu àq rek lépp lu ñu yaakaar ni buñ ko jafee rek bokk na ci yëf taalibe rek ñu ngi koy jéem ndax tamit dëgg yàlla toogoon nañ fi defoon ko te dara xewul ci jotaay nii rek Omar ne lan moo tax li mënuñu ko def mën na waa ñu ne waaw bañ gis nga bu làmb jotee yëfi làmb la ñuy def bu liggéey jotee yëfi liggéey la ñuy def mais lii dafa jot mu toll ci bisam toll ci période am xam nga dafa waxtaan boo xamante ni boo xoolee safar gi jour biñ koy waxtaanee jour boobu la ñuy woo suñu nit yëpp jour boobu la ñuy génne suñu poos def ci daaw ba mu fi ñëwee fekk foo woon li ci nag ren mi ngi ne yokku na. moo xam ne kenn ku nekk doo doo nangoo des ginnaaw. ku ci dugg am ci xol bu sell yow yaay bëgg a reculer te ca kanam nga jëm rawatina koo xamante ni nag yokkute nga bëgg yoon bi amul tànk wàññiku amul tànk taxaw lépp ci kanam la xol bu sell di nga ci am li nga bëgg di nga ci lépp loo yuuti di nga ko ci mën a am. yàlla yàlla ñu yàlla saxal ci jaamu yàlla ndax ay jurit lañu mais ay taalibe lañu ay taalibe lañu bëgg a te taalibi lañ gëm ne moom lañ doon. gis nga de Demba Ndiaye ñun ñoom nekkoon nañ ci dëjëm bi di ñaan waxtaan ajjana yu gën a kawe bi jaayir Seydou Diouf salaahu salaam euh, géejuwaay gi yëpp a rawatina nag Balla mi nga xam ne moom lañ fekk si daaw da sekk ñëpp xam ne nekkul woon sax nit ko am jot. waaye waaye daal xam naa ni daal ko amoon jotam la moom mi moo tax bi mbir mi amee kenn jiitu ko fa euh, géejuwaay ñin lii daal la ñu xam quoi ñun moom lii la ñu xam topp suñ ginnaaw grand yi xale yi tamit topp seen ginnaaw waaw. am dernier waaw sama dernier mot moom li may wax rek nag mooy euh, euh, jàppante ñëpp jàppante ñun géejawaay loolu lañ mës a xam Balla Gaye keroog bi ñu dajee fale ak El Hadj Malick Gakou ne euh, benn xaritam moo ko doon tooñ ne ko yéen saay boo leen tafee Gakou ci wet gi rek wala ay jàppal bàyyil yéeg wàccal seetlu nañ ne da ngeen di daanu te loolu moom loolu moom nekkul sax ay mbirum Balla gay Ahmed Aïdara Malick Gakou wala Aziz Ndiaye wala benn bale benn bant bale boo ne ko taraj mu damm mais boo ko dajalee ba mu doon bale jël ko jéem ko damm nga xool boo jëyee benn mat benn mat boo ne nii mu damm mais boo jëlee sayu mat dajale ko takk ko yenn demal nga xool ba xam nit mën na koo damam déet noonu lañ mel te moo tax nag alir bi nga xam ne moom la géejawaay nekk am nañ yaakaar ne li nga xam ne moom moo fi nekk dana ñëwaat te xale bii nga xam ne moom laa seet si seet si tey euh, yàlla moo yor ndam yor match nul yor défaite waaye roi des années incha allah rabbi ko jël maa ngi sant yàlla bu baax a baax. bi baax métti. waañ bi déedéet métti. waaw tàmm nañ ko. waaw waaw waaw. safar gi mu mel chaque année at bu ñëw rek day dàq bi nga xamante ni moom lañ passé tey ban jàngat ah, yoonu Serigne Touba moom xam nga ne amul tànki gannaaw tànki kanam rek lam moom loo ci def ren incha allah bu ne nga am lu ko waaw tax safar gi chaque année day gën a neex rek. xéewal yokk na waaw waaw day gën di yokk rek nag day gën di yokk rek ay mbiru Serigne Touba mel noonu uh, semaine bi ñu ne sarax sumb dem boo amoon yan dénkaane nga koy defal waaw sëy moom muñ la rek ak ak ak uh, ma ne sëy moom muñ la rek ak dégg sa ndigalu borom kër loolu rek mooy sëy boo ko defee rek incha allah doo sonn loolu rek laa koy digal. ma ni bari na monsieur yi bari ah Sénégal de xam nga mooy loolu rek. waaw dëkk coolo rek. waaye da ngay comprendre rek xam ne dëkk coow rek nga géré siw moo mel noon daal siw du jaam boroom boo xasee ba siw rek lu ne ngay dégg waaye dangay ngay muñ rek géré waaw topp xool sa yoon daal.

ak tamit paas yi nga dañ koy yokk tey boo amoon benn message boo adressé chauffeur yi pour ñu wàññi paas yi dañ koo war a wàññi nag xam sëñ Touba eh. ñu def ko rek addee sëriñ Touba wàññi paas yi loolu de moo nekkoon yoon moom loolu lañ war a def waaye xam nga ñun murid yi moom bu ñu dem Touba incha allah boo ñu waxee paas 500000 dinañ ko paas dem mais ñu wàññi rek te xam ne ñun moom paas loo ñu wax dañuy dem nañ egg Touba rek bu soobee yàlla mais ñu wàññi paas yi nag mooy gën waaw.